aja euh, jërë ngeen jëf yéen sunu mbokku Indnote bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfalaat bu baax di delloowaat ku nekk uh, sa wàccuwaay amaat leen di kontaante ak mbégte bu baax niñ ko faral di def ak kilifa yëpp tey ñu fas yéene dalaat benn kilifa di kàngam nga xam ne kenn du ko présenté di fii ci biir site bi kooku mooy Serigne Moustapha Ndiaye ñu fas yéene waxtaan ci ponk yu am solo mhm. rawatina li nga xam ne saa su nekk nit ñi nañ ci moom yaakaar bu baax ba di koy taataan si fii ci keppaaram bokk na ci lu bokk ci bayre dinañ ci yaatal bu baax a baax lépp loo xam ne bokk na ci feebar ak dinañ ci waxtaan cas d'actualité xew-xew jamono dinañ ci yaatal lii di Palestine ak euh, lii di Israël dinañ ci yaatal mbirum góor jigéen ñi duñ ko fàtte Adamo na ngeen déglu am na luñ ci war a jàllale ma bala nga nuyoo mbokk askan wi. aleykum salaam wa rahmatullah Serigne ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di rafetlu teew gi ngeen fi teew bu baax a baax. di ñaan yàlla suñ borom mu eggalal ñu liggéey bi ci barke alxuraanul karim bismillah jërëjëf euh, sëriñ Moustapha Ndiaye ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaan te am mbégte bu baax a baax dalalaat la ni ma koy def ak say naataango yépp tey nag fi may tàmbalee tey bokk na ci liñ naan bayre tuñ ne bayre nag man mii di la koy laaj bëgg naa ko yow mi di sëriñ bi koy liggéeyal nit ñi sax bëgg nga ko hmm. ba tax na doo ko amut ni ko gars yi day wax da ngay ñàkk xorom mbaa lépp loo teg loxo mbaa nga ci yënkatu rek day xaw a tàggatémbe hmm. ñu ñëw ci ni ngay liggéey bayre jërëjëf sëriñ Cheikh ñu ngi lay delloo nuyu bu baax di la ziar di balu àq ñëpp ci weeru mag yu ñu jóge mooy weeru koor di ñaan li taxoon yàlla digal ñu ko euh, muy li mu wax ne kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun objectif bi yëpp mooy ñu jële ci ragal yàlla <laughs> ragal yàlla googu yàlla nañu ko yàlla defal ñu nekk ci barke alxuraan <laughs> euh, bayre nag nekk na mbir bu am solo boo xam ne ku ci nekk ak ci yoon wam koy jaar ngir mën ko def. Mhm. parce que dafa bëri ay yoon yu yu nit ki mën a jaare pour def ko. Mhm. loolu am na ci ñoo xam ne dañuy jaar ci alquranul karim euh, lu mel ni ay suuraat yoo xam ne mag ñi bàyyi woon nañ ko fi. Mhm. Euh, di ko di ko bind di ko boole ak la muy àndal ci xeetu parfum yi nga xam ne moom lay àndal wala mu nekk xaatim yoo xam ne mag ñi daan nañ ko. jëfandikoo ngir mën a samp seen nit. Hmm. lu ci mel ni yaasin ci taal nit mag ñi fonkoon nañ ko lool ci maanaam nit ki am bayre ñu di ko jëfandikoo ci juróom-ñaari mubin yi ci nekk ak uh, maanaam lu mel ni ay sondel hmm. ak leneen la muy àndal mag ñi fonkoon nañ ko lool. Hmm. loolu genn wàll la waaye dafa am loo xam ne ñeneen ñi nga xam ne xëy na dañuy dund ci bay def bayre te nit ñi léeg-léeg xaw leen a gëm lool. mooy ñi nekk ci àll bi nga xam ne ñoom sunguf rek la ñu xam ak reen. Mhm. ñooñu boo demee ci suñu côté yi siin yi mag ñi ñoom lenn rek lañ daan jëfandikoo li ci ëpp ñi nga xam ne sunguf rek lañ xam bokk na ci lu mel ni ay waswaso. Mhm. bokk na ci lu mel ni timin timin xeet sunguf yooyu bokk na ci lu mel ni li ñuy tuddee ay ngooca koy. Mhm. ñenn ñi di ko wax gambu golo. bokk na ci yeneen xeetu sunguf yoo xam ne dugóor pël yi di ko wax dugumi. ñoom yooyu am na nuñ ko daan composé ñoom tamit. di ko jox ay nit te ñi ñu ko daan jox euh, maanaam daan nañ ci gis njariñ yu baree bari ci xeet googu noonu kon mu mel ni mm-hmm. bayre moom ça dépend ci nit ki fi mu jàngee ngir mu mën ko def am na ci ñag ñoo xam ne dañuy dañuy boole ñaar yëpp mooy boole alxuraan ak sunguf loolu ni nga koy xamee boo demee ci <clears throat> alxuraanul karim lu mel ni naa inna fataxnaa xam fatxan mubiina wala sax nga ne euh, euh, boo demee ci wayandurakallaahu nasran adita ci mm-hmm. biir saar bi mu gën a gàtt am na ñuy déchiffrer boobu li wayen durakalaw nasan ataytan mu nekk huit cent dix-huit nga xam ne benn ci garab yi mhm. muy wasasur boo ko jëlee euh, valeur numérique bi huit cent dix-huit lay doon am na nu ko mag ñi ñoom tamit di composé ngir man ci defar bayle mhm. kon daal yooyu yu xóot la yoo xam ne mag ñi daan nañ ko daan nañ ci jaar ngir mhm. defar bayle loolu nag mag ñi amoon am na ci ñoo xam ne bàyyee nañ ko ay ay ay gone yoo xam ne nekk nañ fi suñu seex incha allah. tarkal jërëjëf euh, Serigne Moustapha Ndiaye ci li nga xam ne lépp loo xam ne dëxëñoo na ci bayre fi nga koy jaar ba am loo xam ne lu taw féexe la euh, am na solo waaye dama ñëw ci liñ naan rab suñ ne rab nag liñ ciy waxtaan ci suñu biir réew mi bëri na. Mm. Euh, ni muy def ci nit ki bëggoon nañ koo xam lan la ko mën a indil comme gëneel ak lan la ko mën a yàqal. Mm. waa sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax di la ziarat encore une fois. rab mbir la moo xam ne man xëy na léeg-léeg sax ma gis ñu bari dañ ciy wax comme man ak ñeneen waaye dafa am ci àdduna ñaar yoo xam ne wala ba ñett dafa am loo xam ne dañ koy tuddee ilmul yaqin aynul yaqin ak xaqul yaqin mhm. mooy nit ki euh, mën nga ne lii daf ko daf daf dañu ne safara moo ngi nii wala ñu ne géej moo ngi nii nit ki ñëw na taxaw ba ci wetu géej gi mu gis ne lii ndox la mhm. kooku xëy na am na ci xam-xam moom la ñu tuddee ilmul yaqin mhm. am lu ñu tuddee xaqul euh, maanaam aynul yaqin nga xam ne nit ki xëy na dem ba dugg ci biir ndox mi moom xam na ne moom ci biir ndox mi xaqul yaqin nag mooy bi gën a dëgër mooy nit ki dem na ba tàmm na naa lab mhm. moom àdduna bi loo ko wax ndox rek la lay tontu parce que mu ngi ci diggu ndox mi léegi li ma la bëgg a tontu foofu ci wàllu rab euh, comme nit ñi wax am na amut détail yooyu man duma ci faral di dugg parce que ci xam-xamu bi ñuy jàng ca daara ja bi ñuy njëkk jàng euh, ci maanaam li ñu tuddee asaali bu tafkiir ci philosophie ci daara ja dañuy wax ne nit bi fi mu nekk. Mhm. niveau bi mu toll lay xalaatee environnement bi mu nekk noonu lay xalaatee. Mhm. donc nit bu ba yaroowut ci yenn béréb mhm. lu bari bari mënu ko xam boo tax suñ ko ko waxee logiquement daf koy weddi. parce que ni muy raisonné moom mooy jàpp ne lii daal moom comme xamu ci dara amu ci information xelam nangu ko daf koy weddi. alors que xam pour pour pour ñëw ci rab lim mën a yàqal nit ak lim ko mën a jariñ bu fekkee njariñ moom nañ xam ne yàlla rek moo ko yor waaye nag dafa am fu mu koy jaarale mooy ci ay mbir. Mm-hmm. parce que tey salaire bi ngay am bu fekkente ne kii na yàlla du ko wàcce dafa am fu mu koy jaarale. Mm-hmm. kon njariñ ak lor dafa am fu ko yàlla di jaarale. Mm-hmm. boo demee ci dëkk àll bi man am na genn góor goo xam ne ndaysaan lu baree bari euh, sama wëllëre boo xam ne dama fa dem lu bari bari. dañ mus a tare tase ci benn béréb bu doy waar. mu am lu mu doon jënd dala dogal kopparam motut comme man dama amoon habitude su ma taseeg nit suy def dara su ma amee lu ma ko mottali dama koy mottali ma jël loolu fayal ko ko mu jox ma benn këyit maanaam jox ma ko après ne ma boo demee ñu déggante maanaam euh, këyit bi numéro daf ci nekk jamono yooyu maa ngi hmm. bi ma ko woowee mu nekk ci dëkk bu sori ma dem fa ñuy waxtaan ci wàllu rab waaye pour wax la ne rab mën na mën na yàqal nit lu baree bare mën na ko lor xam nga tey nit ki. buñ nee rab moo ko jàpp mu toog nawet ba nawet dël si lalam bi du ko wàcc. Mhm. xam nga nit mën na ko weddi. Mhm. mais yow mi ko dund gis ko doo ko weddi. yaakaar ne liggéey la. waaw fekk mhm. rab la ci moom. Euh, góor ga man dem naa fa temps bu bari am na ci loo xam ne sax xëy na man la ko doon defloo ginnaaw bi ma jàngalee ci yu baree bari. parce que rab téye na ko ci lalam daanaka nawet ba nawet dël si ci lal bi daanaka du ko wàcc. te benn mbir moo ko waraloon mooy def na lenn loo xam ne rab bi bëgg ko. Mhm. tey gis nga ñenn ci nit ñi bala ñuy bu ñuy lekk boo koy seetlu balaa ñuy lekk dañuy cof tuuti tuur ci suuf loolu xëy na boo demee ci àll bi wala ñenn nit ñi nga xam dañ cosaanu àll bi même ñëw ci ville bi sax di nga ko seetlu ci ñoom. Mhm, mhm. moom dafa daan def balaa lekk mu tibb ñaari dànk yóbbu leen ko. xëy nag am na bis boo xam ne defu ko daanaka loolu moo ko jural fitna ju metti jooju waaye tax na. mu sonn lool mais dem na ba dellu si waat léegi nag njariñ bi ko rab di jural moom mooy. Mhm. kon loolu xam nga ne xëy na mën nañ ko jàppe lor. Mhm. Euh, ginnaaw bu defee li mu war a def waaye njariñ bi ko rabbi di jural boo xoolee mooy daanaka néew na lu mu lay wax ci xam-xam mu deñ mhm. information yooyu du moom la mais rab boobu moom moo koy jox. tey dem naa ci benn dëkk bu ñuy wax njoojoon. ñu miin siin yu bari miin nañ ko. maire bi ferut ijji mais day wax arabe day wax français day wax leneen. mel ni ñu sol quoi. léegi nag loolu yow yow yow nit ki en tant que nit buy raisonné ci xel kese doo ko nangu. Mhm. mais yow mi toog ak moom ngeen échanger da ngay nangu. Mhm. magum jëmm toog di jooy lan la dañ may door te gisu lu luy lu koy dóor. nga dem ci dëkk yoo xam ne boo demee tey mun naa tudd boo demee Ndiob. Mhm. Euh, soriwul suñu village yi. am na ñoo xam ne ci mag ñi dañ lay wax ne am na ci garab yu fa nekk yoo xam ne boo ko jëlee xàmm ko sa kër dafay dafay dafay tàkk. te ñu gis ci ay misaal yu baree baree bari donc yooyu ay mbir la yoo xam ne hmm. rab daf koy daf daf daf koy daf koy lore nit ki léegi nag kantaan nit ki weddi gëm ñàkk gëm hmm. loolu yàlla sax bi mu wàccee li muy wàccee dafa wax ne ku mu soob na gëm ku mu soob na weddi hmm. waaye li wér te mooy nit bi weddi science fi mu toll bu biir bi amee loo xamante ne ni maam opération rek moo ko mën a solutionné dina xam ne science am na njëriñ incha allah ndax xelam dina daj médecin yi jërëjëf aja euh, ci lu bokk waa ramlu xeetu seet la boo xam ne bari na njariñ ci ni ñu ko mën a jàngale am na ñuy indi cosaan bi ba ci yonent yàlla Idris ak wala i demee noonu waaye man damay faral di wax ne histoire moom comme nettali bi day far day faral di am wuute gu baree bari mhm. du may faral di xuus man ci wàll googu waaye daal am na njariñ ci seet ramlu nag mu mel ni dafa am fukki doom ak juróom benn mhm. ñenn ñi xëy na jàpp ne ñi jàng alxuraan wala ci xeetu asraar goog rek ñoo ko xam loolu njumte la euh, parce que ñun ñi ko jàng ci xeetu alxuraan dafa am maanaam ci langue dafa am lu koy jànge mooy doom yi dañ lay tudd ne doom bi par exemple ñu ne la jawdala la wala axyaan la wala ñu jël doom bi ne bayaat la wala euh, maanaam tari euh, maanaam nuñ koy wax sax tarix moo xam nuñ ko tuddee ba mot loolu ñu langage biñ ko xamee lañ koy woowee waaye am na ci euh, boo demee ci suñ mbokki mbokki pël yi boo demee ci àll buñ la koy jàngal ndeysaan euh, euh, maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yokk ko sutura. Mhm. magum pël mu mag moo xam ne daan nañ daan na ma daan ma jàngal wet boobu ñoom am na nu ñu koy tuddee dañ koy tuddee lu mel ni tarika. Mhm. wala ñu tuddee ko lu mel ni seefar wala ñu mel ni tuddee ko amar wala raki sa kiis wala kabat kiis ñoom xeetu terme yooyu lañu ñu xam. Mhm. moom lañ koy woowee loolu ni ñu koy xamee mooy tey wolof bi ni muy woowee. Oh, maanaam oto noonu la ko xamee séeréer bi nu mu koy woowee noonu la ko xamee. Mm-hmm. bi ni mu koy woowee noonu ko xamee mais teewul oto moom oto la. donc kon mm-hmm. nekkul ne ku ku xamut euh, maanaam mooy ci arab ni ñu koy rek xamuloo xam-xam bi boo demee ci àll bi mag ñi fa nekk ci suuf lañ koy tomb li tax ñu koy tomb ci taax yi lii ci li ci ëpp ci kayit mooy. Euh, xëy na ni ñu tabaxee suñu kër yi waaw suuf si mm-hmm. moom ma fa amul léegi nag lu mu mën a am euh, buy wax souvent Ramli day wax ci ñetti ñetti anam benn bi léegi dafay nekk lu passé benn bi dafay nekk lu teew benn bi dafay nekk souvent lu ñëwagul léegi benn nit bi nga xam ne philosophie bi mu amee daf naan nit mënul xam lu ñëwagut wala nit mënul xam lu passé loolu xëy na mën nga ko nangul parce que niveau bi mu toll ci niveau bi mu toll ci xam-xam. Mhm. waaye science wane na na mille ans ci ginnaaw maanaam Égypte nangam ñu mel nangam ñoo fa dëkkee mhm, woon. Mhm. xam-xam lañ sukkandiku donc kon bu ñu jàppee li weesu yàlla rek moo ko mën a xam. kon loolu scientifique yi prouvé naka lañ koy mën a naka lañ koy mën a woowee bu ñu jàppee tamit ne lii ñëw yàlla rek moo ko xam kon naka lañ ñu scientifique yi mën a waxee ne d'ici nangam hmm. nangam ji dina xew géej gi dina avancé nangam wala d'ici nangam dina taw wala d'ici nangam euh, maladie sangam mën na nañu bari doon nañ ci wax hmm. léegi xam-xamu ramli noonu la demee mais mbir mépp ça dépend ci ki koy wax kan la hmm. ak bi mu koy wax fu mu ko teg ndax li muy wax daf ko teg ci bakkanam wala li muy wax ndax daf ko teg ci xam loolu donc moom mooy définir mbir mi. Mhm. waaye Ramli moom xam-xam la bu am njariñ boo xam ne euh, maanaam bari na ci réew mi ay buur yoo xam ne sax daan nañ teg seen wet ku ko xam ngir mu leen ciy dimbali xam naat ñu bare bari mais. àdduna ni mu tëddee du nit lu xam rek daal di koy wax. tarkal incha allah. jërëjëf euh, Serigne Moustapha Ndiaye am na solo ci ponk yooyu nga desoon di ci yaatal bu baax di leeral. Mhm. Euh, damay ñëw ci li nga xam ne ku la ci laaj war na laa laaj ndax danga nga ci yëngatu xam nañ la ci bu baax. Mhm. mu di lu bokk ci mbirum daara. lan nga mhm. ñu ci mën a wax. waaw daara mbir la boo am boo xam ne man tout le temps damay fier di ci dellu si donte nag dund naa ci ay difficultés yu métti yoo xam ne. bokk na ci daar yoo xam ne jaar naa fa daanaka ba ma fa jugee ba léegi euh, delluwuma fa parce que jàppewuma leen jàppewuma leen daara parce que difficulté yi ñuy teg nit ñi yooyu xëy na mun naa bokk na ci état bi di xeex waaye daara jàpp naa ne am na lenn loo xam ne war nañ ko ci soppi encore une fois dama koy wax mooy nit ki mënul am sept ñu indil ko maanaam sëriñ daara bi mu nekk fa ba nekk vingt ans alxuraan rek parewu ko. te mën a sax. waaw rek dèjà pareegu ko te bu paree alxuraan loolu taxul mu xam lislaam donc kon war na jàngiwaat. Mhm. diine su jàngiwaatee diine ba pare nag léegi mu des avenir am bi mu war a am ci réew mi léegi ba tey nit bi nga xam ne day jàpp ne yàlla moo yor lépp loolu njumte la. Mhm. parce que <clears throat> boo demee ci alxuraanu karim am nañu lu ñu yàlla di wax daf ñoo wax ne. wabtaqi fi ma ataka allahu daaral axira waaye nag wala tansa nasibaka mina dunya donc kon ñaari yoon la hmm. bul na nga góorgóorlu ci sa wàllu alaxira waaye bul fàtte sa àdduna hmm. donc kon ki samp daara wala kii jàngale hmm. war na xalaat ñaari yoon yooyu benn bi alaxira la jëm benn bi àdduna donc bu jàngalee nit ki li jëm alaxira kese lor na ko bu jàngalee nit ki bi jëm ah, maanaam àdduna kese lor na ko donc kon dafay fexe ñaar yooyu na am donc man ci loolu moo tax ma jàpp ne man may may samp daara du ma ci noppe donc bi ñu inauguré yàggul di euh, tàmbale ñu jàpp ne war nañ dugal ci système bi lu jëm moo xam informatique la wala dina yeneen détails yu demee lool loolu nag xëy na doole yemul ñëpp mënuñ ko. Mm-hmm. parce que man dèjà dama am xalaat bi wax ko rek maa koy nuyu suma benn xarit bu nekk États-Unis mu ne ma dinaa la yónnee ay na mm-hmm. léegi mu mu egg si waaye pour wax la ne nag dañ war fexe ba dongo li ñuy def ci temps bi ñuy def ci daara. ñu bàyyi ko parce que bu ñu jàppee ne état bi dafay xeex daara wala nangam nit ñi ci boppam ñi gëm lislaam ñooy xeexal seen bopp daara xeex seen bopp daara mooy moo ñooy xeexal seen bopp daara xeex daara mooy yow nga am doom ne duma ko yóbbu daara donc dañu war a poser question lu tax parce que dama am benn nit boo xam ne dañ mos di waxtaan kilifa la tey it moom xëy na bëggoon na wàllu daara lool parce que dafa daan ñëw léeg-léeg daara bi ñu nekkoon mhm. mais dafa dem ba jëmmi jamono mu ne man de bu ma amee doom ma ko yóbbu daara donc man attaqué wu ma ko ne ko gëmoo yàlla lu tax doo yóbbu sa doon daara mais dama ko posé pourquoi limaza mu parce que gis naa ne ñi ëpp ci daara bu ñu bu ñu bu ñu génnee souvent dañuy am difficulté pour intégrer wu ci société bi. Mm-hmm. loolu am na ci daara yoo xam ne noonu la ñuy formé. léegi nag mu mel ni ñenn ñi souvent tout le temps dañuy indil sëriñ bu teg ko d'accord. Mm-hmm. ñu koy ñaanal yàlla defal ko xewal mais génération sëriñ boobu doon doon sëriñ boobu kese ñi ci des ana ñu fuñ mujjee. bu ñuy euh, indil ki jiite Senico. Mhm. du moom kese génération ana fi ñuy mujje mhm. bu ñu indilee Serigne Moustapha du moom kese ana génération donc kon day mel ni bu ñu jëlee téeméeri nit. Mhm. kenn am ci benn réussite bi loolu échec la du neex a dégg mais loolu échec la kon ma jàpp ne daara daal war nañ ko jéem a soppil suñu bopp mais pas état di ñu ko di ñu di ko soppil. soppi gi nag mooy d'abord ñun ci boppam ñu xam. parce que yow sa bopp boo mënul defar sa avenir d'abord mënuloo defar avenir u keneen. Hmm. parce que mën a jàng alxuraan rek taxul nga mën a jàngale parce que nit ki boo koy jàngal au delà de xam-xam bi nga koy jox. Hmm. maanaam da am loo ko a préparer d'abord mu gëm ne nekkul ne imam rek la war a doon. Hmm. mu gëm ne nekkul ne oustaz rek la a doon. mu gëm ne nekkul a teg rek pour jullee néew wala mu gëm ne nekkul ne dañ fi nekk pour sarax ko ay fooy balance parce que boo demee fu mel ni je pense Turquie ci yi may gëstu. gars yi wala sax dem àtte tribunal ba pare ngoon wala mu dem opéré euh, kiiwam nuñ koy wax sax malaadam mm-hmm. loolu bo amee mooy tax ñu ñu ñu xam ne kon mm-hmm. léegi lislaam dina mën a dëgër waaye bu buñ tombee ci lislaam nangam nangam gaa yi ñu ngi bàyyi daara mm-hmm. souvent dañu war a question lan moo tax parce que buñ jàpp ne état mooy xeex daara parce que daara joo dem ci koñ junni nit a nga fa yoo xam ne kenn yóbbuwul seen doom ci daara ja te loolu état waxu leen dara donc war nañ poser question lan moo tax doomi julli ñu yóbbootuñ seen doom yi ci daara loolu question bu ñu war a posé ñun tout gën a yaatal beneen yoon incha allah mm-hmm. waaye damay ñëw ci mbirum euh, lii di góor jigéen bu di turu ñaari xaw ñaari turu ni ko nit ñi di waxee. Mm-hmm. waaye dama ciy duut baaraam tudd ko. Mm-hmm. mu mel ni liñ ci euh, seetlu fan yi ci biir réew mi dafa mel ni lu ci nit ñi gën di waxtaanee mu ràññee fi. li ci ëpp nit ñi dañoo balaame lii di président ak i ñoñam. ndax lu bari soo waxee ñu ne ñoo leen di dooleel. ñu ci mën a wax. waa xam nga man nag. bokkuma ci ñi nga xam ne lu xew rek dafa am kuñ koy jiiñ d'abord damay jàpp ne ci man la tàmbalee dafa am lu am solo lu sëñ alxaaji Malick waxoon maa ngi ñaan ñenn ñu ñu yër téere ba mu tudde xantaratul murid dafa wax ne walay sa farxun baynamal insaan wal xayawaan duunamal irfaan maanaam nit ki ak mala bi lenn rek moo leen séparé mooy xam Mhm. leen rek moo leen séparé mooy xam tey ñi xam diine dëgg dëgg dëgg jàng ko. dès le bas est-ce que gis nga leen ñuy dund ak ngóor jigéen yaakaaruma ne loolu am na kon d'abord li war jiitu mooy balaa ñu koy taqal président ñu taqal ko ñun suñu bopp ba pare doo koy egg ci président parce que président bu gisul woon ñu doon ay góor jigéen du leen jéem a dooleel. nu ñu koy taqale suñu bopp. waaw waaw xam nga dama la wax dama la wax dama dama wax lenn. Mhm. tey góor jigéen bu ñu jàpp ne ñi koy doon ñëpp ay la dañu bon loolu njuumte la. Mhm. parce que bon mus naa am benn nit boo xam dafa may woo bay ba bay bay jooy pour ma dimbali ko naka laa koy mën a dimbalee ba mu génn situation bi mu nekk li ko dugal ci ngóor jigéen du bon mais ci kër gi mu nekk la ko dundee xam nga loolu kon kooku du bon. Mm-hmm. ba pare am na ci koo xam ne dont loolu du excuse du excuse li ko ci dugal mooy ñàkk. mais avant ñuy xool par exemple bu ñu waxee ne ñu ngi ñu ngi euh, def benn loi pour ñu criminaliser bi euh, maanaam wàllu góor jigéen dama ne loolu lu mot a tey la parce que li tax mu mot a tey mooy mhm. criminaliser nañ viol mais dafa gën a yokk te am na ñu ciy loru ñoo xam ne mun nañ tëdd kaso ay dix ans mais mhm. violé wuñ defuñ dara donc kon même góor jigéen aussi noonu lañ ci war a mën a noonu lañ ci war a mën a teye ñuy xool léeg-léeg mbir bu xewee lan moo tax mu xew cest à ñun dañuy ñëw rek ci problème bëgg ko indil solution te xooluñ li indi problème bi tey. Mhm. pour jox la benn exemple xam nga dañuy wax ne nit kii doomi jullit la dafa war a def nangam. Mhm. mais ki nga xam ne nangu na ne doomi jullit la. nangu ne par exemple warul def loo xam ne mën na ci dee te bu ci dee mën nañ ko jàppee xaru exemple. Mhm. mu dëkk Bawol wala Kajoor wala Siin fu mu mënti dëkk. nangoo jël gaal di ko xuus pour lan alali àdduna donc kooku. est-ce que bu demee feneen ñu proposé ko ay milliards alal moo taxoon muy xuus ci géej gi mën na dee bu bu xuusee ci géej gi ba egg ñu proposé ko alal ju bari pour mu doon lee wala mu doon lee kan moo la wax ne dina ko rejeté parce que alal moo tax mu xuus ci géej gi donc kon ñun ñi nekk ci réew mi euh, dañ war a d'abord fexe ba solutionné lii ñuy wax ñàkk mu dañ ci réew mi te ci nga bokk kii ci la bokk man ci la bokk sëriñ bi doon ay taalibe ci nga bokk. Mm-hmm. politicien bi ci la bokk. Mm-hmm. d' abord ñu solutionné maanaam li jëm ci wàllu ñàkk te nit ñi dañ dem ñi leen di wax ci diine. Mm-hmm. pour wax leen ne lii araam na lii dagan na dañ dem ba duñ leen déglooti parce que ñoom ñi leen koy wax souvent ñu ngi def lu gën a araam loolu naka ko koy misaale. tey ñii woote ne nañ criminaliser maanaam par exemple loi bi. Euh, wàllu nuñ koy wax sax góor jigéen. d' naa yàlla leen yàlla jàppale loolu sotti waaye ci palaato bi ñu koy waxee fi ñu leen invité. Mhm. dafa am lu piir lu fa nekk loo xam ne lislaam daf ko araamal te duñ ko wax. mooy jigéen bi lay invité dafa xeesal jigéen bi lay invité tubay la sol jigéen bi lay invité body la sol jigéen bi lay invité gerefaas la sol. léegi lan moo dox sa diggante ak nga wax ko loolu léegi boo nee loolu dundam la ba duma ci wax dama ciy maandu kon góor jigéen bi loolu dundam la. donc kon solution yi dañ ko war di tàmbalee. ci li ñu gën a jege est-ce que tolloo nañu tayo waa xam nga mooy yàlla moom bul jàpp ne nangam ji tolloo na wala nangam ji tolloona na que li mën a juddoo ci loolu maam li mën a juddoo ci li jigéen boobu nga jàkkaarlool def moo gën a pire góor jigéen bi li muy def naka nga mën a misaale lool tey viol lu ëpp buy am dafa am lu jigéen bi def. Hmm. mën na am dafa sarme kooku mën a am dafa def nangam mën a dafa am def nangam ba yee sentiment góor boobu. Hmm. loolu da koy seetlu donc. tey xool bi ko nit boobu di xool di ci bàkkaarlu keneen bàkkaarlu keneen bàkkaarlu ci loolu lu rëy la. Mm-hmm. donc kon foofu nga war a tàmbalee. ñaareel ba mooy yaw mi wax ne gu nit ki da nga war a fexe ba du nekk góor jigéen te mën na am kee li tax mu nekk góor jigéen euh, maam ñàkk la. Mm-hmm. au lieu que naan nañ def loi bu ñu criminaliser fexeel mu génn ci ñàkk bu génnee ci ñàkk loi bi du am parce que du doon góor jigéen. léegi naka nga mën a misaalee yow mi doon kilifa diine raison bu nekk nga am nga fa kër boo xam ne gàtt gàtt mot na quatre-vingt nangam million ki ngay wax ne na bu mu dem ci góor jigéen moom baayam bu añee du reer donte loolu nekkul excuse mais li nga koy wax mënu ko gëm parce que boo ne ko l'islam diine dimbalante la l'islam diine jàppalante la léegi yow fu ci nekk kër raison bu nekk kër ga nga am mat na quatre-vingts millions sans compter voitures yi nga am ak say compte bancaire kooku du la déglu loo koy wax du la déglu te loolu ñëpp la tey ñi ñuy tuumaal ci scandale yu baree bari ñoom ñooy wax góor jigéen nangam góor jigéen nangam mais ñoom bu dee politiciens yi wala sëriñ yi ma boole ci xëy na sama bopp su ci bokkee suñu fexe woon ba li ñu am ci alal. mu mhm. normal li ñuy xeex yëpp duñ ko xeex duñ xeex mbëkk mi duñ xeex góor jigéen parce que nit lu mu dugg rek am na lu tax donte ñàkk du excuse mais balaa ñuy egg ci def loi boo xam ne moo xam dañ koy tëj. moo xam mhm. dañ koy rey moo xam dañ koy tëj dix ans mais loi bi mën na bañ a am. parce que am nañ solution boo xam ne bu ñu fexe woon ba alal ji ku ci nekk a jot. góor jigéen moom man moom dama jàpp ne warta am. Mhm. loolu laa jàpp mais lu am rek am na lu ko indi suñu réew nag souvent ñun ñu jàng diine dañuy ñëw rek ñëw ci problème bi ne dañ koy solutionné d'abord lan moo indi problème bi ba pare. jërëjëf acca dama lay bàyyi ñi nga xam ne ñu ngi lay seet. prêter say kàddu. Mhm. waaye damay ñëw ci li nga xam ne ci. Euh, lii di lislaam ñu koy noot ndax seetlu nañ ko. Mhm. ci diggante lii di Palestine ak Israël gis nga coow li. Mhm. Euh, mu mel ni lool li mu gën a mën a taxawu la wane ci seen i xar kanam. Mhm. wane ne naqar la ci ñun. xam nga lislaam moom amul problème loolu nag xëy na balaa may développé mën na la sokke mais lislaam amul problème ñooñ lislaam ñoo am problème. noonu yee tax may waaw noonu mm-hmm. mm-hmm. ñi doon nitu lislaam nga xam ne nee nañ gëm nañ ñoom problème mais lislaam amul problème. ñoo am problème waaw. Mm-hmm. tey mag ñi dafa am lu ñuy wax ne bukki bu yebee waxambaane. ca doxin bala ca doxin bala. gis nga lislaam jiite na àdduna bi ay at yu bari. mais dafa am benn échec bu ñu def ñun après ñun ñu jël lenge bi mooy dañ gën a favoriser nettali histoire ka xam-xam. tey. Mhm. bi fi yonent bi jógee ba léegi chaque année xare badar bu ñëwee dañ naan ñu yonent bi moo taxawoon côté bi Alioune moo taxawoon côté bi Alioune moo rey kii kii moo rey kii kii moo mhm. rey kii loolu bonut mais ban objectif moo taxoon yonent bi di def lool mooy lan iqra bismi rabbika mhm. mooy fexe xam-xam am. kon ñun jullit ñi dañ war a fexe xam-xam am mais ñu ci ëpp ni ñuy def mooy fexe rek xëcc jëmali seen côté te liy jëmali seen côté bi du du ñu nettali du ñu wax xam-xam. mais ay histoire yoo xamante ne nit ki mën na ci bëgg pour jox la xaalis que soit mu nekk boo jëlee l'islam bi yëpp wala mu nekk ci tarixa tarixa bi ma bokk wala mu nekk tarixa bi nga bokk li ñuy gën a favoriser mooy nettali histoire et pourtant am na lu gën a am solo lool mooy ñu valoriser xam-xam mhm. parce que l'islam day soxla xam-xam l'islam dafa soxla xam Israël bëriwul loolu xam nga ko te bu ñu jàpp ne béréb bi. Mhm. masjidul aqsa buñ jàpp ne jullit rek ñoo xam njariñ boo fa nekk. parce que boo demee ci alxuraan yàlla daf ñu wax ne. subhaana alladi asra bi abdihi laylam min al masjid al xaraami illa al masjid al aqsa alladi waaye nag baarak na xawlahu man yàlla maa barle barkeel li wër masjidul aqsa loolu bul jàpp ne ziib yi xamuñ ko xam nañ ko. Mhm. léegi ñoom comme xam nañ lool yitte ji ñuy def ba war ko jël ba bëgg maam am accès foofu ñun yitte jooj lañ war a def yitte jooj nag wax du ko def. il faut waaw ñaan kese it du ko def. parce que hmm. ñun ñun souvent dañuy jàpp ne maanaam bu dara xewee rek nañ wàcce kaamil nañ ñaan. Hmm. yonent bi daawul def loolu yonent bi ci moom la alxuraan wàcc moom mooy ki nga xam ne moo war ñaan mu nangu <laughs> xare badar bu toogoon di ñaan kese dinañ du sotti nan lañ def mooy jëfandikoo xam-xam ngir lan mën a défendre lool kon ñun buñ jàpp ne dañuy toog rek di ñaan ci loolu nag ma jàpp ne. Hmm. réewu jullit yi pour wax la ne jullit ñooy seen noonu bopp. tey misra muy Égypte mamlakatu arabi di ay saoudi maam arabi saoudia mhm. ak turc ak iran ñeenti réew yi rek mën nañ solutionné affaire bi ñoom presque arabi saoudia nee nañ jàpp nañ ne moom mooy maanaam ndey l'islam ban réaction nga gis bu am solo bu mu ci def gisuloo ko mhm. man man gisuma ko bopp peut-être sama ci xam ko mais gisuma ko mhm. donc kon ñun ñooy suñ noonu bopp ñoom mën ko solutionné solutionné wuñ ko lan moo tax peut-être ñenn ñay accord de paix accord de paix moo la gënal lislaam léegi yow loo ci man man lu ma ci mën dañuy naqarlu ba sonn rek mais naqar la ñuy dëkk mais du am solution kon ñi ko war a solutionné mhm. ñoom ñoo war a fexe solution bi am te ñun jullit ñi mhm. ñenn ci ñun xeetu xalaatin bi ñu am ñu bàyyi ko parce que li amoon maanaam siècle bi yonent bi di ñëw mhm. ak vingt et unième siècle bi mënul ci ñun gaa yi raw ci informatique ñenn ci ñun ñooñu raw ni ñuy defaree arme ñenn ci ñun ñooñu raw économiquement ñenn ci ñun ñoo raw ci nangam ak nangam tey buñ ne tubaab bi ñoom ñoo ñu imposé wàllum góor jigéen ñu dellu ci lool par exemple lool balaa may tëj foofu mm-hmm. ñu ne lan moo tax Macky Sall sañu ko bañ ñu ne dañ ko xooj économiquement kon ñun xam nañ li tax ñu xoj Macky Sall maanaam ku lay abal gëtam fu ko neex ngay xoole léegi nan nan lañ def ba ñoom ñu jiituñu économiquement laaj mu mu njiit lañ am parce que ressources yi yàlla def fii ci li ma ci xam man defu ko feneen donc kon xoj biñ ñu xoj. Mhm. xam nañ ne économiquement lañ ñu xoj ba mënuñu bañ dara. kon tant ñu ngi ñuy xoj économiquement. Mhm. loi ñàkk loi ci yam dañu ko ne di ko imposer. Mhm. parce que nit ki tey su fekkee dafa xiif ba amul lu mu lekk. bu ko réew tugal yi xojee yow mii yow mii naan ko maanaam wàllu ngër jigéen dafa araam yow lay dal sa kaw parce que faaw mu lekk donc kon d' abord li ñu war a fexe mooy moom suñu bokk économiquement. loolu nag day tàmbalee ci daara yi. Mhm. ñu jàngal nit ñi ñu gaaw génn ci daara ji dem defi leneen. Mhm. ki nekk ci école bi ñu jàngal ko xam-xam boo xam ne day théorie rek. damay da ngay ñëw village ngay waxtaan ak ay étudiants yoo xam ne yow mi jàng daara souvent boo leen proposé benn projet. doo comprendre sax ban idée lañ lay jox. daara ji nit ki su paree niñ koy jàngale souvent tellement que day jàpp ne ku jàngul alxuraan moo la gën. parce que liñ ko jàngal mooy yonent bi nee ku jàng alxuraan di ko jàngale yaa gën ku dul moom ma ne non non wax ji kon dañu war a wax ne. Mhm. ku jàngale alxuraan wax di ko jëfe yaa gën ku ko defut ki jàngal alxuraan di naan di njaalo di tiriyan di sàcc kooku kay wax dëgg yàlla ki jàngal alxuraan sax bu gën. Mhm. parce que yàlla suñu borom dafa wax ne yow ma laa yanfahu maalun wala banun illa man atallaah bi xalbin salim daa bis boo xam ne xol bu rafet rek mooy jël xol bu rafet boobu nag. Mhm. du jàng alxuraan kese moo koy joxe parce que nit ki day jàng alxuraan pare kon nit ki balaa muy gën kenn. day jàng jëfe li mu jàng. yooyu ay ay nit ay mbir yu ma a jàngat la daal. mu aja ah. ñu njëkkanteeg waxtu wi ndax xam naa fi mu toll nii euh, xooj nañu targal la. Ah, waaye ñu ñëw njëkkante jeexal dama ñëw ci li ñu naan wax. waaw ah, xaw tuuti sax parce <laughs> que. nga nooy ànd mm-hmm. euh, yaa ngi wax ne après nit ñi ni ñuy xam nga nit ki nit moom li ma wax rek niveau bu mu toll foofu lay foofu lay analyser. Mm-hmm. après bu tëddee ngeegnaayam dina xam ni li ñu wax nii lu raisonnable la. Mm-hmm. waaw fay wax moom mbir la moo xam ne li ñu waxoon sànq. bëri na ay ay sëriñ yu ciy def jaloore du ma ne man dama ciy def jaloore mais bëri na ay sëriñ yu ciy def jaloore parce que ci Covid bii rek. Mhm. <laughs> man xam naa ay nit yoo xam ne waroon nañ ñàkk seen place ci bitim réew pour lan fi ñu nekk xëy na dañ ko luye woon mais dem nañ ba mënatuñ fay. Euh, waaye ñii leen bëggoon a génn dem nañ ba dootuñ ci waxati. Mhm. loolu nag ay mbir la yoo xam ne mag ñi ñoo ngi ko fi bàyyi woon. lii ay jat la ay takku ban takkatuma ban ay sira xeet yooyu ay jat la ñii nag ci alxuraan lay jëm ak ay mbir. da nga koy codé daal da soo ko waxee ba mu jeex sax nit ki mënu mënu ko def parce que xam-xam lépp looy def dafa am ay sart. tey këpp kuy capté ci internet di bind. moo xam kii joxe nangam kii joxe nangam souvent yaa ngi jum parce que bu waxaalewul code yi rek. Mhm. après da ngay def ba sonn perte sa temps doo ñëw kon wax fay wax moom am na ñuy jaar ci wàllu jat wallu xam-xamu sunguf ak détail am na ñuy jaar ci wàllu alxuraanu karim. Mhm. am na nag ñu boole ñaar yëpp. di lu am njariñ la nit ñi mën nañ ci góorgóorlu. Mm-hmm. ci koo xam ne nag dafa jub ñu bëgg ko toroxal. Mm-hmm. war na mën a góorgóorlu ci loolu. jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Moustapha Ndiaye kontaan nañu ci dalalaat la ci 221 people waaye kontaanaat naa ci xibaar boo xamante ni jot naa ko sànq mu di Adamo Adamo nag ñu ngi koy jaajëfal bu baax kontaan ci moom soo gisee ma ne kontaan nañ ci moom euh, mu daan def nit ñi di koy ñaawlu. Mm-hmm. kontaan nañ ci mu di saaga yam doon def dafa taxaw ne ba ko ba na ko du ko defati. Hmm. loolu nag dañ ciy kontaan bu baax. Hmm. waaw lan nga ci mën a wax. waaw man nag yàlla dafa am nu ma bind noo xam ne maa ngi koy jéem a sàmm mooy lu lu lu négatif souvent du ma ko gis lu positif rek laay gis benn yoon laa mos a tombé ci vidéo bu mu def te du suma téléphone loolu yàgg na. Euh, benn nit moo ko yoroon ñëw di ma ko wan lu lislaam wax ci kii ma ne ko mënuma ci am mënuma ci am xalaat parce que du ma ko déglu parce que man du ma nit boo xam ne day wax ay kàddu ñaaw yàlla xam na ne télévision sax bu ma bu ma jàppee. Mhm. ñu ciy wax ay mots yu vulgaire du ma ko déglu moo tax loolu moom. aw ma ci benn benn xalaat parce que aw ma ci information yu doy yu ma ci mën a xalaatee. waaw mhm, waaw waaye ku doon def ñaawteef ba ne bàyyi naa tout bàyyi lépp ak yooyu noonu waaw bu dee loolu nag moom soo ma laajee loolu mën naa tontu waaye kon da ngay jël kaawam teg ko ne le mhm. léegi ma nag carrément nit bu doon def lu lu bon ba tuub loolu moom mën naa ci wax waaye moom kaaw moom mënu ma aw ma ma ci wax parce que aw ma information yi doy mhm. léegi nag nit bu doon def lu bon ba tuub moom loolu ñëpp moom la ñuy ñaan alhamdulilahi rabbil alamin kon kuy def lu bon ba tuub yal na ko yàlla suñu borom nangul tuub ga mhm. donte nag tuub mhm. dafa am ay sart yu baree bari yoo xam ne xëy xëjut ci li des ci émission bi te nit bon bon donte man gëw ma nit bu bon jëf ju bon rek xëy na moo am hmm. yàlla dafa wax ne laa taqanatu min rahmatillahi inna laa na sunuba jamian mooy bu leen naagu mukk ci yërmande yàlla parce que yàlla bëri na yërmande kon képp kuy def lu bon ba wëlbatiku tuub yal na yàlla dogal tuub googu di dëgg yal na yàlla dogal tuub googu di sax te it nit ñi ci àdduna bi di def ñaawteef yépp di ko siiwal dañu am fu ñu koy jële rek yow ci nga bokk hmm. kii ci la bokk kii ci la bokk Mhm. parce que euh, tey bu kenn defee benn ñaawteef bu ko kenn siiwalee ñu ci ëpp ci nit ñi dañ koy dañ koy dañ koy dañ dañ koy dañ koy dañ koy reprendre. Mhm. loolu kon lu mat a bàyyi xel la lu mat góor góorgóorlu la xam ne man mi def lu bon li ma ci am ki ko siiwal ki ko gi yëpp. ci lañ ko ci lañ ko am nañ ci bàyyi xel bu baax te góorgóorlu ci incha allah taala lépp soom na